ñu yow fii nag ci kaw ndigal ci sunu turu président El Hadji Ablaye Dieye borom mouvement Siggi jot na mu yónni ñu fi ay xeeti teraanga yoo xamante ni da ko teg ci loxol ki nga xamante ni mooy sunu coordonnateur muy alxaaji ci Yacine Diagne ñu ànd ak sëriñ Omar Dem mi nga xamante ni ku ne xam na ko ci lislaam waaye ku ne xam na ko ci dëkk bi ñu ànd ak sunu masa eh, Massaer Gueye mais nga xamante ne moom tamit ku ne xam na taxawaayam ci mouvement bi ak sëñ Omar Diop ak ñen ko àndal ñëpp ñu ñëw fi ne ci turu président ab Ablaye Dieye sëñ Cheikh ñu ngi ànd ak El Hadj Thieyassine Diagne moo njiitu délégation bi mu yëkkati kàddu cant ak kàddu yu ngërëm yu bàyyi ko ci président Ablaye Dieye ñu lay nuyu bu baax di nuyu sa rakk yi nga xamante ni ñoo feggoo ak yow muy sëñ Modou njaay ak seen Ibrahima. ak njaboot gi ñoom ñëpp kenn ko ne ñu la jox sa wàccuwaay ñaan yàlla sama borom dafa leen jàmm dafa leen sutura bi xormati sayyidina Muhammad sa alayhi wa sallam président Ablaye wax ni nag ah lii na bu ko jëfee day sàkku ñaan ci réew mi rawatina balaa bi nga xamante ni yàlla wàcc na ko ci àdduna muy ñaan yàlla saa borom balaa bi yàlla mee ko findi yàlla na ko jëlewaat ci réew mi ba yóbbu ko fa mu ko jëlewoon te yàlla bu mu dellusiwaat ci àdduna di la sant nag bu baax ci sa taxawaay ndax yaa ngi yëngu ci diine yaa ngi yëngu ci lislaam waaye nag rawatina sa kër maam yi nga xam te ni yéen a ko séq yéen ñaar amuñu leen lu dul sa kër maam kon moom lépp lu muy jëf lu jëm ci lislaam bala moo dem fenn day ñëw ci kër maamam tàmbalee ko fa bu ko defee ndax loolu mooy njiglaayam mooy nuyu mbooloo mi nga xamante ni ñoo ñëw alxaaji Ablaye Dieye yónni leen muy cee eh, eh, eh, Yaasin moom ñoo ngi koy nuyu bu baax ndax ku nekk xam na digganteem ak Ablaye ku nekk xam na ni mu taxawee ak Ablaye ni mu ko jàppalee te yàqalu ko dara lu dul di ko defaral saa su nekk moom it ñoo ngi koy nuyu nuyu goo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem eh, di nuyu imaam eh, Omar Dem moom it ku nekk ni ko ceer noo waxee rek ku nekk ci dëkk bi boo ko boo ko xamul dégg nga aw turam te taxawaayam di doon taxawaay bu rafet lépp jëm ci lislaam lépp jëm ci lu baax moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér Ah, ni mu taxawee ci ginnaaw alxaaji Ablaye Dieye di ko jàppale moom it yàlla na ko yàlla fay ci taxawaay bi eh, di sant mbooloo mi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw Ablaye Dieye di ko jàppale ñoom ñëpp yàlla na yàlla fay leen ah lañ cey dolli ci ay kàddu rek mooy sant ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Dieye di ko ñaanal yàlla bu baax a baax ndax yàgg nañ di ko wax te du ñu deñ di ko wax moom taxawaayam ci Thiès waxuma la ci Thiès waaye Sénégal taxawaayam moom ñëpp rafetlu nañ ko waaw ku fi nekk rek moom ab Ablaye Dieye ni mu taxawoo ci yow yëg nga sa bopp ci moom waaw la ko yàlla jox muy bare di néew ku ci nekk yëg nga ci sa bopp te li ñuy wax yàlla rek a tax ñu di ko wax ndax ñun yàlla rek la ñu gëm yàlla rek la ñu yaakaar njariñ ak lor fenn kot lañ gëm ni fa lay jóge mooy ci suñu borom waaye nit suy def lu baax da nga koy wax ngir jëmmi suñu borom ndax borom xam-xam yi loolu la ñuy wax isa du fi final xayr jaazal man nit ki bu fekkee ni day def lu baax te doo ko wax bu ko neexee mën nay ñaxtu waaye Ablaye ku nekk xam na ni li muy def yàlla rek tax mu di ko def li muy def yàlla rek moo tax mu di ko def loolu moom dañ koy yëgal àdduna bi yépp ñu yëg ko kon ku mel noonu jàppale ko lu war la jàppale ko lu war la lool it moom ñoo ngi ci ñu ñoo ngi yëkkati suñu kàddu mu dem ba ci président di ko xamal ni Abdoulaye ci famille bu baax la bokk ndax Cheikh Mor Ndiaye daa bàyyi ku ko ku ko xamul it dégg nga aw turam te taxawaay bu rëy la taxaw ci réew mi ndax jàmm ji am ci réew mi loxoom ma nga ca biir ndax ba muy bind téereem bu tedd ba ay nu naim dafa ñaanaale yàlla ca biir ni ko wa baladan mu aminan yow yàlla maa ngi lay ñaan réew mu am sécurité maa ngi lay ñaan réew mu am jàmm kon jàmm jooju nga xamante ni moom la Cheikh Mor Ndiaye daa bàyyi doon ñaan bokk na ci jàmm ji nga xamante ni yàlla dina ko jël di ko wàcc ci Sénégal Ablaye nag kooku doon ñaan yàlla naan ko réew mu am sécurité mu am jàmm maamam la maamam la bu baax a baax kon mel na ni Ablaye ku ko jàpp jàpp nga njabootu Cheikh Mor Ndiaye daa bàyyi gi yépp président nag ñoo ngi lay xamal ni ab Ablaye wax dëgg yàlla mi ngi lay liggéeyal liggéey bu rëy liggéey boo xamante ni ku nekk fii ci Thiès rek mën nga koo seere waaw mi ngi lay liggéey liggéey bu rëy ndax lii mu def du lu ndaw lu rëyee rëy la. ab laay nag lii mu def moom euh, moom euh, du du du du du ñu guleet. <laughs> waaw moom lu nekk loo xamante ni teel ko njëkk def. <laughs> waaw nekkul moom ba mu koy tàmbali ko def boobu sax dugagul ci euh, mbirum politique. waaw moom dafa moom dafa dafa jiitu moom. waaw dafa dafa jiitu. te defit euh, mi ngi koy defit fi fi fi fi fi fi fi mu ko war a def. Ah, ah, ah. waaw ndax dañuy wax ne nit ki bu fekkee ne yaa yaa yaa ngi bay. Euh, moom euh, da da da nga njëkk ci say oom. Uh-huh, uh-huh. waaw li li li li bu setee rek. Uh-huh. fe fe feneen foo foo foo foo foo foo bayti mu rafet. waaye moom mbay mbay moom ci ci ci ci oom la ko tàmbalee. waaw ci oom la ko tàmbalee moom waa daabaay gi yëpp sant nañu ko. waaw daabaay tàmbalee ko ci xalifa ba. ba ci ay rakam ak. Euh, àgg si ba ci njaboot gi yeeg ba ci àgg suñu jëmm ñu ngi koy sant bu baax a baax ñu ngi koy gërëm bu baax a baax euh, ñu ngi ñaan suñu borom yàlla mbas mi yàlla wàcce yàlla na ko suñu borom jëlee euh, yàlla na ko suñu borom jëlee kum kum dalagul yàlla bu mu la dal kum dal yàlla na ko suñu borom saafara yàlla na yàlla jële ko fii mu mu sori lool ñu ngi sant bu baax a baax ndax dëgg yàlla teraanga yi teraanga yu rëy la mm-hmm. am naa du ko yemale ci ñun rek ñu ko defee fii noonu la koy defee fépp mm-hmm. waaw noonu waaye ku yàlla yàlla gën koo kattanal bu baax a baax rek gën bu baax baax ñu ngi koy sant bu baax a baax tënku ci li nga xam ne mooy ndigal li xam ne mi ngi bàyyi ko ci njiitu réew mi suñu jarbaat bu nekkee ca loola ñun dañuy sant yàlla ni ngir nekk gim ci nekk ndax nun dey ña nga ca loola ne ñi ngi sant nag kii nga xam ne moom la yebal muy coordinateur bi ci Yacine ñi ngi lay sant baax yaa ñi nga àndal di rafet lu baax taxawaay bi ànd bi nga ànd ak sunu jarbaat xam nañu ko yaa ngi koy rafetal yaa ngi koy sàmm loolu nag mbégteem sëriñ bi la ak njabootu borom daabaay géppit nag Abdoulaye Dieye li ko war li ko war mi ngi ci. maamam nag maamam nag jaay Mor Ndiaye Daabaay daf daan wax ni damaa xamul yéen li leen war yéen a ngi ci am déet waaye bu ngeen ci nekkee ba yàlla képp des ci yàlla moom man na wàllam dëgg la. kon ñoo ngi doole sant yàlla baax ndax way juram Adja Maymuna di sunu mag dañuy sant moom itam bu baax ci moom. ndax moom li ko war ma nga ca waaye way juróom ba sëñ Moon Njaay Daabaay daana wax ni bu ci nekkee ba yàlla rek des ci yàlla moom man na wàllam kon sëñ baa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ndax lii day lu am solo la Ablaye Dieye nag dañ koy ñaanal ndax xam nga aussi nit bu ngeen di ànd nga digal ko nga ne defal nga def loolu kooku day neex a àndal dafa naa keroog laa fi jog maa ngi ñii ñoo ànd indi fi teraanga ndey tikke xam nga tey Ablaye Dieye cee Yacine bu baax mi moom woo mu ne ma ñëwal Thierno Faye mii laay wax nit baax la billaay du toogaayam moom xam na man xam naa yàlla xam na nit ku nit ku ma bàyyi xel la du ma wax seen wax maa ngi ñoo bokk lépp ma seer mii loo ko wax loolu lay def Omar Omar ana Omar dañuy daje barke seen naam te laa leen ko wax bu ñu dajee sama oto danaan seere ma seere mu sol ci essence Omar bi day wallaay ci taskatu xabaar yi samay xarit lañ ngeen gis sànq ba léegi maag bëgg baal ak ñoom ñii samay xarit lañu man kees mooy sama xarit mais feebar bi nañ ci bàyyi xel bu baax bàyyi xel mooy feebar bi baaxul bawul kenn rusul kenn gis nga lu lu lu dee dee rusul euh, fekk ak président yóbbu ko ma fekk ak xalifa yóbbu ko noonu la feebar bi mel yàlla nañ ci yàlla musal lu ci ëpp importance daara yi xale yi nekk ci daara yi nañ leen wax nañ ñaan xale yooyu muy ñaan rek yàlla dina ko nangu xam nga lu mala fii nag jàmm rek kenn maam alaaji moom yàlla na fi yàlla yàggal góor gi mu nuyu Ablaye Dieye ngeen ñaanal ko Ablaye Dieye baax na ci dëkk bi yaru nit la man sama xarit ci turu sunu wayjur alxalifa alxaaji mouhamadul munir tabaarakallahu mu boole ñu ak sunu mag alxaaji ibrahima habib njegen ak sëriñ bàcc njegen ak njaboot gi ngir ñu dalal leen fii ci seen xadara kër maam euh, yàlla dogal kenn ku nekk ci yéen muy alxaaji omar dem muy cee yaasin jaañ muy Massayer Gueye muy Thierno fay ak ba ci bëgg fàlloog ñi ngeen àndal ñëpp ku ci nekk ci kër gi rek way juram am lante na ak sunu maam amlante na ak sunu way jur sëriñ Muniiru lu waral mu ñëw ci kër gi donte dañ ko fee yónni tam mu ñëw wax kàddu yi ko ko yónni ba noppi tontuwaat ci kàddu yi kër gi te daañ ko doyloo daañ ko rafetlu yàlla moo dogal loolu muy ay wëllëre yoo xam ni fa tabaarakallaahu mag ñi ñoo ko sosoon waaye yéen ñi fi des yéen a ngi koy rafetal ba fii ñu toll fa tabaarakallaahu euh, di leen jottali nuyoo bu jóge ci mu Muniiru jëm ci Abdoulaye Diop président Abdoulaye Dieye président euh, ndax euh, Abdoulahi ñëw na fii ci ba bataay yàlla dogal na tam way juram wóllëre sunu maam alxaaji Amadou Ndiéguène la radiallahu anhu yàlla dogal na tam maamam di sëñ daabaay sunu maam alxaaji Amadou Ndiéguène moo ko dalaloon fii ci dëkk bi kon bu yàlla dogalee mu jóg di def teraanga ci dëkk bi ah boole kër maamam alxaaji Ahmad Boro ci kër yi muy def teraanga wàcc na dafa mel ni daal weer dafa jot mu dem ci biir këram jënd ravitaillement jox soxnaam niñ ko ci ñàkk sante di ko ci gërëmee jëf ji mu jëf fii ci kër gi tam wàccuwaay woowu la am ndax ñun ni ñu doonee njaboot fii ci biir kër gi noonu la doonee njaboot fii ci biir kër gi waaye nag ah nit doon na njaboot ci bërëb ba tàyyi te doxewu ko waxewu ko jëfewu ko kon nag arab yi dañoo wax ni la shukra alal waajib ñu ne ahakay dañ ne sant jarul ci ki nga xam ni daa def li ko war ñu ne ah kay sant nag ci ki def li ko war rek la jar mooy def na li ko war yàlla mi nga xam ni moo am fay yàlla na ko yàlla fay yàlla mi nga xam ni moo mën a jàppale jaam yàlla na ko yàlla jàppale ndax ah, ñun bariwuñu lu ñuy génn ak yëngu-yëngu waaye nag saa bu nekk fii ci xadara bi li ëpp li Serigne Mounir di wax ni fii ay émetteur sans fil ñoo fi am xibaar yi ni muy dawee fii ca xadara bi day yéeme sax fu nekk la xibaar di jóge di fi agsi yu baax yi muy def di ko jëf di ko taxawu ci nit ñi lépp fii la ñuy fekk te lépp yàlla tax lépp mbaax a tax lépp xam ni Cees sa dëkk te bala ngaa defar dëkku jàmbur wala ngay génn di lijjanti jàmbur yi lijjantil say mbokk ak say dëkkandoo ba noppi kon lii mu def ci mbaax lii mu def ci yiw du tey jii la ko fi def ci kër maamam gii du tey jii tam la ko def ci yeneeni kër maamam kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax a baax président confiance bi mu am ci moom ak kóoluteef gi mu am ci moom ak jàppale gi nga xam ni bëgg na mu jàppale ko yàlla na ko yàlla gën a taxaw yàlla dolli ko sutura yàlla dolli ko jàmm. ci ndigalu président Abdoulaye Dièye ñu dem ci mu jëndoon ay xéwal euh, ci ay ceeb diwlin suukar ay soble pour fekki daara yi fi ñu nekk ak kilifa diine yi nga xamee ni que ñoom it nit ñi dañ leen di ci ay ndimbal mu dem fa pour def ci loxoom def ci participation pour ñooñu mbir mi mun a oyof ci ñoom euh, jënd na tamit lu mel ni ay produits euh, yoo xamee ni que daf leen di dimbali ci cet muy eau de javel muy saabu ak euh, gel hydroalcoolique yi nga xamee ni que euh, dina leen jàppale ci xeex jàngoro ji ndax jàngoro ji kat wax nañ ni comme amagul garab liñ ci mën a musal daal mooy set mooy fu ñu toll ñuy raxas suñu loxo waxtu bu ne lu mu bon bon ñu raxas suñuy loxo ak saabu ah jël gel def ci. boo génnee ci mbedd mi it boo ñëwee nga raxasu jël gel def sa loxo donc bu ñu demee fekk leen foofu def naa loolu lañ leen mën a jàppale ci loo xamee ni que dina tax ñu xeex mbas mi nekk ci dëkk bi loo xam tam dina leen dimbali ci seen toogaay boobu ñu toog du ñu soxla dara bay génn ci mbedd mi loolu moo taxoon vraiment président Ablaye boole ñoog délégation bii ñu àndal mu ne demal ngeen demal ma daare euh, yi nekk Daabaay Kër Maam El ak euh, kër Cheikh sëñ Cheikh Ndiaye Daabaay ngeen yóbbul ma fa teraanga yi donc euh, muy loo xam ne nag daf koy commencé rek te loo xam ni tamit daka daan def avant mbas mi di xew donc bu mbas mi ñëwee mu def ko dafa fekk ni loo xam ni jikkoom la looloo taxoon aussi mu xam ni lii benn pas bu mu teg la rek yeneen yaa ngi ñëw incha allah képp ku mu gis ni war nañ la si dimbali aussi nee na dina la si dimbali. donc euh, daanaka loolu moo taxoon suñu génnu tey bi bon doon sakkuwaale ñaan tam si kilifa yi ñu demoon euh, ndax ñu ñaan jàngoro ji ne si réew mi yàlla dimbali dimbali ñu si teggil ñu ko. waaw boo xoolee euh, loolu lañ njëkkee parce que tëbuñ tëb rek dem ci nit ñi di leen jox ay dund boo xoolee le vingt jour bi président di wax jour président di wax ni dañuy tëj école yi boobu fekk nañu ñu jënd suñu stock ba waroon sensibiliser bu ma bu ma waxulee sax bu ma bu ma juumulee sax dinaa wax ni ñun ñoo ko njëkk a def fii ñun bi fii nii ba bokk na si ñi ko njëkk a def ndax bi ñuy wax avant nit ñi di wax waxi daan rek yooyu ñun fekkoon nañu lal suñu benn plan de sensi benn plan pour sensibiliser nit ñi fekkoon nañu jënd suñuy suñuy Euh, gel hydroalcoolique jënd ay savon jënd ay ay euh, eau de javel dem ci biir jàkka yi fekk fa imaam yi wax leen dañoo bëggoon ñu sensibiliser fidèles yi ñëw foofu di julli ci boobu sax tëjaguñu jàkka yi bañ fa jógee aussi dañoo dugg ci koñ ba porte à porte li kër yi nekk suñu gox yooyu yi ko jegeeg yëpp amul kër guñ fa tegul tànk waxtaan ak yow ci mbas mii di ñëw boobu graayul ni boobu ñu ngi ci ñaari cas boobu ñu dem ci kër ku si nekk ñu dugg fa waxtaan ak yow jël sa loxo teg sa loxo symboliquement benn butéelu eau de javel ak butéelu kotol won la nañ koy defee. loolu président Abdoulaye Dièye bokk ci ñi ko ñi def ba ñu jógee foofu aussi jeune mouvement yi ne ñun kat lu suñu président nekk dañ ciy dañ ciy dugal suñu loxo. ñu def souscription volontaire ku nekk li nga am nga indi ko biñ ko dajalee mu néew mu bëri jënd nañ ko tamit ay ay ay ay euh, jum jumtukaay. ay savon ay eau de javel yi nga xam ne daal moo ñuy ah, moo ñuy dimbal ci set gi ñoom it ñu def seen délégation dugg ci daara yi daara woo daara muy Thiès nord est ak ouest yëpp ñu dugg fa dem ci ciblé dem ci yenn daara yi jox ko sëriñ daara yi def fa démonstration won leen tamit ni ñuy ni ni xale yi war ko war ko jëfandikoo donc vraiment sensibilisation wu lañ jiitu avant ñuy dugg sax ñun ci mbirum dund mi